asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw mbokki mbokki internet yi ñu ngi leen di vraiment di leen di dalal donc ci centre pyjama al afia bi nekk Sicap Layène côté marathon bi donc cherche mooy ànd ak yéen tamit c'est seeni séance de massage ñu tuddee xijama baax ci yaram lool donc baax ci yenn douleurs yi tamit ak loo xamante ne vraiment képp ku yéeg sa yaram di métti rek am na am na ay masters yoo xam ne ñu ngi fii comme à part bi tamit am na kinési donc incha allah ñu jublu ci hijama bi ci kàttanu suñu borom. donc lu bax la lu baax ci yaram la te lii loo xamante ne dañu naan toujours lii nit ñi dañ koy gisee ne yaakaar na dafa yomb war ko lii lu ñu li ñu war a jàng la li ñu war a xam la ndax nit dafa am ay point yoo xam daf koy metti donc incha allah xam naa bu ñu paree le patient dinañ ko laaj moom tamit lu mu yëg ci yaram bi ci kàttanu yàlla baax na tamit ci ay sciatique yenn sciatique yi wala arthrose donc lépp daal incha allah si faala ci kàttanu suñu borom yaram bi la lii mooy réseau bi donc gis nga ñu ngi def nañ ci ndigg bi def ci mbàgg bi def fii yëpp donc lépp lu jógee ci la moelle épinière donc puis deret bi tamit dafay faral di jaar donc yii yëpp dañ koy def incha allah ci xam naa ci ay minutes yu néew incha allah di ngeen gis vraiment résultat bi ci am bi ci génte bu am solo lay doon incha allahu taala donc mbokk yi ñëwaat nañ pour won leen vraiment li leen doon wax gis ngeen ngelaw bi nekkoon ci yaram bi nu muy génne ak tàngoor bi donc lii yéen a koy gisal seen bopp mu ngi nii donc gis ngeen lii yëpp loo xamante ni lu baaxut la li nekkoon ci yaram bi te ci kàttanu yàlla da ngay gis ne yaram bi day gën di oyof te fépp foo xamante ne amoon na ay douleur rek da ngay gis ne douleur dañuy faral di dañ ci saas yi donc moom lay wax ne massage bu pratique la te des résultats immédiat maanaam résultats yi da koy gis da koy def gis ko léegi-léegi gis ngeen donc lii moom su fekkente ne tricage am na feneen lii moom du tricage donc mu ngi ne lii tamit li ci ndigg bi la gis ngeen Yeni di jambat ndig li moy nek ci sindig yi motax muy metti donc des fois dina len traîner law sax amna ño ñoo dañuy amé arthrose ndax lan deret bu bon bi day woy té chaton tamit si lay bëgg di dëkk donc way chaton da ay gis ne mu ngi ni kaas yi dañoo fuur mu ngi am ngelaw donc ngelaw bi lépp lu xamanteni ne na ci bokkul won ci yaram bi rek daf ko génne ci kàttanu yalla te incha allah laataa moo jóg incha allah dañ koy mocc incha allahu taala waa kay mbokk yi donc gis ngeen li nekkoon ci yaram bi dindi nañ ko incha allah léegi ñu ngi koy defal li dama koy tuddee bonus ndax lii tamit bokk na ci loo xamante ne yaram bi day gën a oyof genre massage ne la donc pour yaram bi gën a li gën a bàyyi donc euh, mu ngi nii lii def baax na ci mag baax na ci xale donc amul te tamul amul âge ba nga xamante ne mënu ko def bu dul liir kay wala koo xamante ne xëy na ay un an lay am wala mais da ngay gis ne ñu dem ba amee ay deux ans sax am yenn problème ñuy yéex a dox wala ñuy am yenn jafe-jafe yi dañ leen koy defal après incha allah moo ci leen donc lii dem koy defal nii en attendant ba yaram bi gën bàyyi mu gën a tàlli ndigg bi gën a bàyyi après incha allah ma defal ko mocc bi mooy day mooy doon séance bu mujj bi donc ci kàttanu yàlla donc mu ngi ni lii dafa baax ci yaram lii lii kese su ma koy defal nit ki moom ci boppam bu yëgee bu génnee mooy njëkk a yëg ci yaramam am na li ci nekkoon te am na li ci génn donc lii am nañ damay def ay déplacement tamit à domicile di ko def defi ngir lan parce que damay naan nit ñi am na ñoo xamante ne bëgg nañ sutura bëggu ñu ñu leen di gis fu ne donc may déplacé defal leen ko ci sutura ñëwaat donc dans la sous-région je me déplace heure bu ne nag donc maa ngi koy def te dama koy def tamit dem ci jaamu yàlla ndax am na ñoo xamante ne bëgg nañ ko mais xëy ne pour ñu ñëw problème lay doon donc ma épargner leen coono boobu man ak ci kàttanu suñu borom ak mbaax suñu borom yàlla defal ma sutura ba mu eggee ci ba mu egg ci ñoom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 على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقنع ستان بباخ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا بنو سنتي يالله بباخ maa ngi tan bu baax ndax biñ may indi fii toog tëdd naa juróomi weer yoo xam ne jóguma sama rakka bu wóor ñëw seet si ma daal na xool ma ma son na mu oo ko téléphone indi mu naka na ñëw mu indi ma fii bi ma fi indee nag mu accueillir ma ku rafet ab xol la borom xol bu rafet lum la defal ngay am ak tan te da ngay am yaakaar boo agsee da jëkk a jox kafe nga naan mu dugal la si biir faj la bi may ñëw fii mënumaa dox dañ ma indi sama rakkaax sama doom ñoo ma la nga indim waaye fi mu nekk ni barki dem ba dem naa ba Cees am naa tan bu baax yëg bu baax wér bu baax man sax barki dem ba neen fa samedi bi passé nee naa ko man de yëgatuma dara fi mu nekk ni ma amee nerf sciatique loolu yëpp wér na amee amé amee man yo yëpp tassé ci sama yaram waaye lépp alhamdulilahi rabbil alamin sant naa yàlla bu baakha a baakha a baax a baax di ko sant moom mi bu baax parce que ab xolam mo rafet xolam mo rafet set dalay ñew dalay dalay li dal ba nga contane wo na yalla mom kay ku dara metti ba yobo nga ñew man de maa ngi oo ñëpp moom xam ndax man dal fi nekk ni yëgatuma dara dara dara dara woon na yàlla yëgatuma dara yëgatuma dara sama yaram man kay bañ ma nyari ñaari yoon alba ba maa indi sama bopp mum daal bu fekkente ne ni mu la ka waxee jox la garab yi noonu defe nga ko noonu mu la ko waxee incha allah bu soobee yàlla ak tan nga si am waaw sama yaram bi di metti sama ndiggali jàpp sama tànk yi waaw da doon metti juróomi weer maa ngi tëdd dox sax manuma ka waaye fi nekk nii barki de ma dem naa ba Thiès talaata bi paase dem naa ba Thiès te mënatuma woon dara wax dëgg yàlla dañ hmm. koy sant donc mbokk yi lii moom yéen a ko gisal seen bopp donc du man du si sama làmmiñ la jógee mais ci làmmiñ koo xam na xamante moo fi ñëw donc yàlla defal ko sutura donc maa ngi woo ñëpp nag ku nekk rek ak euh, ni nga mën a mel rek nañ ko sante suñu borom te yàlla dina leen ci defal sutura ma leen di naan euh, incha allahu taala ba beneen jamono xaaza asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu